atum 2009 ba tey jox Kassé mu ngi dund ab cancer moom nag ba léegi mu ngay fàttaliku bés bi ko médecin bi annoncé teewaayu virus bi ci yaramam. dama ko jëloon ak philosophie dama jàpp ni yàlla mooy tege mooy teggi bu nee damay wér ci kàttanu yàlla damay wér parce que wér ci loxoom la nekk suñu borom moom moo yor wér moo yor feebar moo xool ko neex mu teg ko ko. dund ak cancer nekk lu jafe te métti yi les malaat soxla rek courage bu bëri ngir rek mën a xeex li feebar bi ku mu dal da ngay bañ faral di wéet parce que dafa metti c'est pas facile ku ne cancer xam ne feebar bu metti la donc des fois mënul ñàkk ngay xalaat mënul ñàkk des fois nga jooy mais après dañuy delloo si lépp si loxo yàlla. mu daal di nëbb turam ndaw si itam moo ngi dund li ni mel atum 2015 ba tey moom nag ginnaaw bu ko mbir mi dalee famille moo ko taxaw bu baax. ñoom mën naa ne sax ñoo ma jàppale ba ma egsi fii ndax bi ma njëkkee euh, feebar Euh, quelque rek ñoo ko xam donc jour opération bi la sax lañ doog a xam ne euh, lii moom ma daloon lii yoo taxoon may jaabante hôpital waaye famille bi nag ñu taxaw ma ba ni mu amaatee ñu taxaw ma comme ni ñu ma taxaw woon rek. jox nag moo ngi si deuxième traitement am ndax mbir mi def ko daal di dalaat ginnaaw bi mu jógee ci traitement bu njëkk bi. damay dem hôpital chaque un an damay def bilan damay def scanner maman bilan sanguin bilan bi rek da lay revenu des fois cent cinquante mille ñoom nag ñoo ngay ñaxtu rek chérub traitement bi te nag ñoo ngay ñaan mu gratuite. scanner bi maintenant mi ngi ci cent dix mille francs xam nga loolu cher bilan sanguin bi ñëw di la revenir ay quarante et quelques mille mammographe boo koy def euh, actuellement di nga fay trente mille francs booleeg transport yi. laata loolee mën a antu yi yile jigéen mën nañ xaar rek ci ndimbalu association House of Peace Sharing mi nga xamante ne mu ngay jàppale lu toll ci juróomi téeméeri jigéen. yi nga xamante ne ñoo ngi ànd ak bile feebar.